jërëjëf mbokk yi dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ginnaaw bi ñu jotee xibaar bu tiis di la doyen Gaston Mbengue ñu daan ko woyee le Don King de l'arène sénégalaise wuy ji na boromam euh, sànq lañ ñu ko wax tey muy naqar boo xam ne dal na ci mënu làmb ginnaaw bi nga xam ni waa làmb ñu ngi woon estat di seetaan combat boobu nga xam ni moom moo doxoon ci diggante Bombardier ak Franc foofu la jógee nouvelle bi bu mu dalee ci Jawaar làmb gis nañu ay reporter ak ay mbëri làmb yoo xamante ne que sumboon nañu seen rangoñ Gaston Mbengue nag nekkatul ku ñu présenté ci làmb ndax champion bu ñu fiy dégg mën nañu wax ne que moom moo la jàllale ku ci mel ni Serigne Dia Bombardier Mohamed Ndao Tyson Yaxya Diop Yékini baaboo yi ak mbër yu mag yooyu nga xamante ni que daan na leen fay cachet yu bari Gaston Mbengue nag bi mu duggee ci làmb ak léegi mën nañu wax ni que fête na trente ans ci làmb dem bàyyi ginnaaw njaboot gu tuuti doomam Makan Mbengue nekk ci bopp structure boobu di Gaston Production ànd ci ak ñu xereñ daan jàppale baayam tey ñu di ko gunge ginnaaw feebar bu yàgg bi ko taxoon a dem France dellu siwaat mën nañu wax ni def na lu mat juróom-ñetti weer bu juróom-ñetti weer kenn gisul la doyen Gaston Mbengue ñu di ko ñaanal yàlla yàlla na àjjana di këram di ko jaale rakkam jooju Aminata Mbengue Ndiaye di ko jaale le parti socialiste le président Khalifa Babacar Sall Barthélémy Dias ndax ku ne xam na ne c'était un fervent militant du parti socialiste waaye di ko jaale si Moussa Nawel nekkoon wasilaam nekkoon kenn ci moom kon mbokk yi dinañu ànd ak yéen bu subaa nga xam defe naa dañu koy waajal levée du corps waaye daal Sénégal moo ñàkk monde làmb moo ñàkk ñu di ko jaale promoteur yi di ko jaale manager chers yi ak entraîneur yi di ko jaale mbër yi di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xaraal jël